yowana saar ñett amoon na ca farisiyen ya nit ku ñu naan ni ko dem te mu bokk ca kilifay yawut ya genn guddi mu ñëw ci yeesu ne ko kilifa gi xam na ni yàlla la yónni ngir nga jàngal nu ndaxte kenn mënula def firnde yi ngay wone te yàlla àndul ak moom yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku judduwaatul doo mën a seede nguuru yàlla ni ko dem ne ko nit ku xas ba màggat nan lay mën a judduwaate ndax day dellu ci biiru yaayam ngir judduwaat yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax ku judduwul ci ndox ak ci xelum yàlla doo mën a bokk ci nguuru yàlla lu juddoo ci nit nit la waaye lu juddoo ci xelum yàlla xel la li ma ne faw ngeen judduwaat bu mu la jaaxal ngelaw fu ko neex lay jublu yaa ngi koy dégg waaye xamuloo fu mu jóge xamuloo fu mu jëm noonu la melit ci képp ku juddoo ci xelum yàlla ci baat yooyu dem ne ko nu loolu mën a amee yeesu tontu ko ne yow yaay jàngal bànni israel te xamuloo mbir yii ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax noo ngi wax li ñu xam di nettali li ñu gis waaye nanguwuleen a gëm li ñu seede ginnaaw gëmuleen li ma leen di wax ci mbiri àddina naka ngeen mën a gëme bu ma leen waxee ci mbiri asamaan kenn musula yéeg ci asamaan su dul ki fa jóge muy doomu nit ki te itam na musaa sampe woon ab bant ca diggu màndiŋ ma takk ca jaar ju mu defare woon xànjar faw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki ngir képp ku ko gëm am ci moom dund gu dul jeex ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gudul jeex te doo sànk mukk yàlla yónnewul doomam ci àddina ngir mu daan nit ñi waaye ngir musal leen képp ku ko gëm deesu la daan waaye ku ko gëmul daan nañu la ba noppi ndaxte gëmuloo ci turu doom ji yàlla am képp ci nii la àtte bi amee leer gi ñëw na ci àddina waaye nit lëndëm gi lañu taamu ndax seen jëf yu bon képp kuy def lu bon day bañ leer gi te du ci ñëw ndax ragal ay jëfam di feeñ bëccëgu ndara kàmma waaye ku def lu jub day ñëw ci leer gi ngir ñu xam ne def na ay jëfam ci kanamu yàlla ginnaaw loolu yéesu ànd ak ay taalibeem dem ci biir diwaanu yude toog fa ak ñoom ab diir di soob nit ñi ci ndox yaxya moom itam doon na soobe ci ndox ci dëkku aynoon ca wetu dëkku salim ndaxte diiwaan booba bari woon na ndox nit ñi daan nañuy ñëw ci moom mu di leen soob booba tëjaguñu Yaxya ci kaso foofa ay taalibe ya tàmbalee werante ak benn yawut ci mbirum sangu set ci kaw loolu ñu dem ca ya ne ko kilifa gi ndax fàttaliku nga kooko nga seede woon te mu nekkoon ak yow ca ginnaaw dexu Yordaan moom de ma ngay soobe ci ndox léegi te ñépp a ngay dem ca moom yaxya tontu leen kenn mënula am dara lu ko yàlla joxul yéen ci seen bopp man ngeen seede ne waxoon naa ne duma almasi bi waaye dañu ma yónni ma jiitu si ko kiy céetal moomoom moom séetam waaye xaritu kiy céetal dafay taxaw di ko déglu tey bég bu déggee baatam mbég moomu moo di sama bos tey te fi mu nekk mat na sëkk li war moo di moom mu gën a màgg te man ma gën a féete suuf ki jóge ci kaw moo féete kaw ñépp ki jóge ci suuf nag ci suuf rekk la mën a bokk te ni niti àddina lay waxe ki jóge asamaan day wax li mu gis ak li mu dégg waaye kenn nanguwul li mu seede képp ku nangu seedeem nangu nga ni yàlla dëgg lay wax ndaw li yàlla yónni kàddu yàlla lay wax ndaxte mayu xel mu sell mi yàlla sol ci moom amul dayoo baay bi dafa bëgg doom ji te jox na ko sañ-sañ ci lépp ku gëm doom ji am nga dund gu dul jeex ku déggadil doom ji am loo dund waaye merum yàllaa ngi la tiim